sa bàyyi nekkal foofu Macky Sall borom mouvement bu mag bi am alliance Macky encore 2019 ku ne xam na ne Touba daa métti naqaree xëccoo sa papa ne président Macky Sall dinaa la taxawu Touba taxawu la Thiès la Tamba tey loolu moo waral tey teewul ci bis yi mi ngi noonu ñu dem Tamba ànd ak docteur Cheikh Kanté mu baax macha allah loolu leer na ma man mii ñëw ndeysaan ba seen bureau ngeen yaatal ma xajal ma yàlla jàmm yàgg papa li may wax yaa ko moom de xaw ma di ko nangu xaw ma di nga wàcc waaye di nga wàcc. tey daa soxla daa soxla ak ay gerte daa waxal lu la neex waxal lu la neex defal lu la neex defal lu la neex waxal lu la neex ay ñi laal muy sama nay yow papa ji mooy sama waay yaay sama waay waay papa ji ey nanooy dama bëgg bis mbaaw di jiital ci nuyoo bi le premier magistrat de la commune de Diamaguène Sicap Mbao monsieur le maire Coumba Ndoffène Fall di ci teg honorable député Ibrahima Lo di ci teg suñu yaay Khadiba honorable député maire Khadiba ñu ngi lay nuyu di nuyu sama yaay Jéenaba li mu wax dëgg olof njaay na peccum liir bu neexee nday jaa jàpp sa mbagg ya Sicap Mbao jàmm gën maa ngi leen di gërëm di gërëm ASC ASC bi cat ba cat ñëpp bàyyuma kenn di nuyu waa ASC terrain basket bi ñoom tamit ñu baax di nuyu nag sama waa mouvement waa mouvement bi ñu ñu ma jàppale mu ñu baax di nuyu baay gay di nuyu Yacine Aïcha Mariam Souleymane kulim dese sëñ Mbaye Ousmane Diop ñëpp di nuyu sama yaay Yacine Niang présidente bàjjenu gox di nuyu sama yaay Kumba Diagne di nuyu Mor Mangane Amadou Tall commissaire Diallo mu ngi ne ci kaw commissaire u dikk muy ku baax sama papa yàlla na yàlla sàmm la bu la neexoon ngeen doo fa ñëw mais dafay sama papa bokk ak sama papa papa kon yàlla na yàlla taxawu la sama yaay jénabal yow tamit bu la neexoon nga ne yaa ngi ci opposition bi doo ñëw du nuyu ki fi Serigne Mbuub directeur Sarr yabal muy El Hadj Abdou Ndaw mu ñëwee fi ñaari côté mu ñëwee fi ci côté Mbuub voyage transport Mbuub ma li damay liggéey ak ñoom mu ñu baax di nuyu di la nuyu ab xëy na ñi fi nekkal président Macky Sall ñoom la waroon ndax ñun tey dañuy jóg di mobiliser son excellence monsieur le président de la république te xam ngeen ne ci électorat bu mag lañ ko fale mais coalition bi ko faloon ñu bëri ci ñoom tey jii wan nañ ko ginnaaw ñenn ci ñoom frustré wu nañ ba àndatuñoo ak moom kon tey mouvement de soutien yi dañoo am taxawaay bu am solo boo xam ne dañoo jug di ko taxaw Ahmadou Diaga ak ñi mu àndal jóg fekk ay jeunes yoo xam ne mosuñu def politique jàppoo nañ ne politique wax lu dëgg la politique caaxaan kese la te politique pénc la moo xam ne dañ fay tànn ay nit ñoo dañ fay tànn ay nit ñoo xam ne ëllëg dañuy taxawal seen askan ay gor nekk fa ay nit ñu am valeur nekk fa mu nekk école boo xam ne day jàngale kon politique ni ñu ko jàppe woon ñëw na leeral ko ci bopp xale yu ndaw yi ne yéen kat bu leen toog yaccaaral jug leen taxawal seen gox jug leen taxawal seen askan jug leen taxawal seen commune waa jàmm gën si kam lu ko neex toog ci biir néegam ñu koy ber kii mosuma koo gis ñu ber moom ñooy bokkandoo di di bokk di reer di bokk li jiitu loolu nag Diop Massy tey la xam nga am na loo xamante ne ñaasu kanam la sën mu dindiwu ko waaye murid Diop taalibe sëñ Mbàkke Madina moom la ñëpp xamul ah, seigne Mbacke ne mom nak la ma tuddé motax mom mi aw ma fayam. deug la. mu nek nit ko xamanteni tay buñ ko dé sargal. way seigne Cheikh Bambali. lu way wax ci mom lu nek am na loo bàyyi. kii nga xamanteni moy seigne Mbacke Madina. ki nga xamanteni tay ji moy seigne Abdou Lahad ki nga xamanteni moy serigne sëriñ Soyibu kii nga xamanteni moy serigne sëriñ ki nga xamanteni moy serigne sëriñ ak sëñ Murtala ku laq seen gërëm la